syndicat bi tamit def ab gëstu bu yaa ci wàllu politique ndaw ñi ak li nga xamante ne moom lañ leen war a utal ni xëy ñu gis ni kon Sénégal ci boppam moom moo échoué ci fànn yu bëri sénégalais ci beneen fànn ak seen taxawaay Les ko wax ci li nga xamante ne moom moo jëm ci jur doom ñu gis ni sénégalais wàññi nañu njur gi ci ab bi nga xamante ne ci la ñuy sukkandikoo léegi soxna yi gën cee bëri juróomi doom ak lu teg nga xamante ne boo ko divisé moom la ñuy am ni doom ci diggante atum 2005 ba léegi yëf yi nag di wéy di gën wàññeeku ba 2019 yi ku ci nekk ci ñoom moom boo defee ab xayma ni kon ñeenti doom lay am faiblesse bi sax nemmeeku nañ ko ba ci milieu rural bi li quotidien wax ci Abdoulaye Diouf Sarr taxawaayam ci jafe-jafe yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci wàllu wërgu-yaram ak mbas mi ñu toll mu def ceeb jàngat bu yaa gis ni kon joriñ ji ñu denk wàllu wërgu-yaram ak action sociale def na lu mucc ayib ci bopp ministère de la santé ki deful lu war kay mooy Abdoulaye Daouda Diallo source a gis ni kon lu njiig njàkk joriñ ji ñu dénk wàllu finance ak trésor moom mooy njàkk ndax jafe yi nga xamante vaccination amee ci wàllub koppar moom ci boppam moom moo bloqué yëf yi moo tax suñu naataangooy gis ni bu fekkente ne am na ay tout tànk yu ñàkk seen bakkan ngir ñàkk vaccination moom Daouda Diallo ci boppam moo leen faat feebar bi lëmbee nappkat yi nekk ci caaro yi boo moytul ci faat leen la jëm ndax libération dafa xam ne ni kon ba léegi ci flou total la ñu nekk maanaam kenn xamagul ana fan la wopp bi soqee ko fukki fan gannaaw ba ñu découvrir premier cas bi nga xamante ne moo laal nappkat yooyee ca diwaanub caaro yi prélèvement yi nga xamante ne def nañ ko tamit ñu gis ni yëf boo moytul ci acide la jógee te foofee ci géej gi la nekk gëstukat nag ba léegi ñu ngi ci liggéey bi di gis ni kon ay produits toxicologue yi nga xamante ne kon ñu ngi wéy di ko ba sax ci li nga xamante ne moom mooy mbaal yi nappkat yi di utiliser wàllu napp gi ak bëccëg bi nga xamante ne moom lañ ko jagleel L'As Quotidien di xam ne ni kon mobilisation bu takku a takku bi ñu gis ci mbir mi ci la nappkat yi ci seen wàllu bopp daal di exposé seeni doléance jëmale ko ci nguur gi rawatina jëwriñ ji leen jabootee wax nañu sax ci immigration clandestine bi nga xamante ne moom moo lëmbee dëkk bi ci kàddu sax daa di wax ci lu jëm ci wàllub gestion ressources yi waaye tamit licence de pêche yi nga xamante ne dañoo jàpp ne dañu koy joxe ci mbirum yàmba neex immigration clandestine bi ak lu jëm sax ci pêche artisanale bi ñu jàpp ni mu ngay wéy di gën di suux ci réew mi Dakar Times daa di fësal kàddu yooyee nga xamante ne moo tukkee ci jëwriñ ji di Alioune Ndoye ak li mu soobu ni xeex ngir wàññi li nga xamante ne moo jëm ci phénomène Barça wala Barsak Barça wala Barsak di wéy 24 heures di xam le ni kon bëri na ñi nga xamante ne ñoo ci ñàkk seen bakkan toll nañu ci téeméeri sénégalais yi nga xamante ne ci samedi gi rek dañoo ñàkk seen bakkan ci waaxub Sénégal yi lu toll ci juróom fukki doomu aadama nag mujj nañu mucc gannaaw kon ba seen gaal suuxee ci waaxub Cap-Vert yi ñooñee sax yéenekaay bi di xam ne ni kon réeroon nañu lu toll ci ñett ci ay bis réew Espagne nak na ma xeex mbir mi ba tax ñu jàpp ni kon phénomène Barça wala Barsak nag boo moyul ndaw ñi léegi ñu utali feneen li ko waral mooy royaume Espagne ci boppam moo fas yéene kon dàkk ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy immigré clandestin yu jaar ci mbëkk mi ba yegg ci seen réew te sax ngir am kayit daf leen a tëlee jëwriñ ju ñu dénk wàllub affaires étrangères ci Espagne moo xam ne ni kon dañoo fas yéene rapatrier ñi nga xamante ne ñoom ñooy clandestin yu jógee Afrique rawatina Sénégal nekk foofee ca Espagne ak Barcelone mi nga xamante ci jafe-jafe dëgg la nekk Stade Quotidien di xam ne ni kon club Lionel Messi bi moom lajj gi mu defati ci kanamu Atlético Madrid tax na ba ñu gën a suux ci championnat bi ci jamono jooje ci Angleterre Sadio ak Liverpool ñu ngay dóor pocc ndax ndam li nga xamante ne am nañ ko ni ki démb ci kanamu Leicester tax kon ba ñu